bamba ñëwul fi indaale mbaax di def lu tax mu gën asalaamaaleykum bokk julit yi bokk taalibe bu ngeen déggee bàkk boobu nu bàkk cheikhuna wa habibuna wa wasilatuna cheikh ahmadou bamba lan mooy bëgg xew ah conférence de public conférence bu mag bi nga xamante ni conférence nationale Cheikh Ahmadou Bamba bi ñuy amal fii ci Mbàkke te nag waa ko sëñ Bamba yi di ko amal fii ci Mbàkke ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Kara ñu jagleel ko lépp conférence bi muy Cheikh Moudou Kara Mbàkke Ndoore mi nga xam ni Seexul Xaddim rek lay wane fan lay amee fii ci Mbàkke ci boulevard bi Mbàkke nag fi la Seexul Xaddim gane jamono Mbàkke fi la Seexul Xaddim tagge Rasulaay kon buñ ko fi wootelee bis boo xam ni bisu Cheikh Ahmadou Bamba la ñu ngi ciy woo jullit yëpp waaye njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi ñoo àndandoo muy waa kër Serigne Touba yi seexi Serigne Touba yi mbooloo mu takku di taxawal bis bi ci teewaayu sëñ Modou Kara ñu ngi ciy woo ñëpp bis bi la le 3 juillet koy defee fii ci boulevard Mbacke bi ñu ngi ciy woo jullit yëpp murit yëpp ci Mbacke Bawal ci teewaayu nag Cheikh Modou Kara Mbacke Noreyni. man Moustapha mbakke bu sëñ Samdulo di leen woo ci bis bu am solo buñ taxawal. bu doomi soxna yëpp taxawal askanu Mbàkke yëpp taxawal euh, seen marabu yëpp taxawal ko ñu de ko defee fii ci Mbàkke Bawal ab bu ama am solo di conférence publique nationale bu mag a mag a mag boo xam ne ñu ngi koy defee fii ci Mbàkke ci Borowaal bi di ci woo ñëpp di ci woo jullit yëpp di ci woo taalibe yëpp bis bi nag ñu jagleel ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ñun ñoo ko taxawal maag ñi ma àndal ñëpp ñu ñu féetale ko ko jagleele ko ndax ak bëggam sëñ tubaa te fu mu taxaw ñu ndaw ña gën faa xamee sëñ tubaa ñu ngi koy defee fii ci Mbàkke di ci woo ñëpp Mbàkke nag lu nu fay woo kenn du bàyyi Daaru Salaam Daaru Salaam nag maa fi teew seen teewaay maa fi teewal waa Daaru Salaam teewal fi waa Ndulo maa ngi woo waa Daaru Salaam gépp te Daaru Salaam gépp it ñu ngi koy waaj te ànd nañ kook ñun bàyyiwun kenn kon ñu ngi ciy woo mbokk yi yëpp bàyyiwun kenn rawatina nag seex si nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo seexal seen maam dalee ko ci waa kër Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh jëmb ak njabootam yëpp ak mboolem koo xam ni Serigne tubaab moo seexal sa maam ak foo ci ak noonu la ci seexal rek ñu ngi lay woo ci bis ba bàyyiwunu kenn bis bi bëgg na kuy ñëw nga teel a ndax nag mise en place incha allah 3 heures lay doon Cheikh Amadou Kara dina ci teew suy ñëw it incha allah des na ko gàttandu li ko dalee fii ci rond ba egg fële ñu koy defee koo xam ne nag teeloo ñëw ba sëriñ bi si nag pour nga yegg si sa bis ba dina xaw jafe ci yow kon kenn ku nekk 2 heures wala une na la fa fekk nga mën a am place mën a toog teewlu waxtaanu sëriñ bi sëriñ bi mu ngi soññ mbokk taalibe yëpp rawatina njobootu boppam ñu tënku ci diwaanu Bamba fépp ak foo mën a nekk ci Sénégal nga waajal bés bi te xam ne bés bi sa bés la kenn waruñu faa jiitu kenn waruñu faa mujj ci organisation ak ci lu ci manti doon di wax ne it moom ci jëm boppam mu ngi dencal waa Mbakke surprise boo xam ne ci Serigne Touba. ku ko bëgg fekkee wala nga dégg ko da ngay a ñëw 15 heures fekk la fa man sama jëm bopp nag en tant que jëwriñ di diwaanu Bamba Fepp ci diggante Touba Mbacke ak Daaru maa ngi woo képp koo xamante ni taalibe bu tënku ci diwaanu Bamba Fepp nga ñu xam ne lii sunu mbir la kenn waruñu faa jiitu kenn waru ñu faa mujj ci lépp lu mënti doon ci liggéey bi lii la sëñ Ousmane waxoon ne dañ ko jàllale ci turam ci turu sëriñ bi di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jégalu ñëpp. li waral bés boobu ñu xam ne sëriñ Touba lépp Mbacke la tàmbalee. Serigne Touba wooteem gi nga xamante ne amul xaj amul seen képp ku na ma jëm ci yàlla Serigne Touba woote maanaam tubaab di ko wax l'aspirant di Dieu loolu nag ñoo ngi ciy woon ñëpp soxna yi bu ñu xaar góor yàlla diñ ci raw ñoo ngi ciy woo nag soxna Gàdd Buso di ci woo soxna Bali Muntaxa di ci woo soxna isa moom ëxlu kafe di ci woo soxna Day Buso ànd ci njabootu Cheikh Ibra Fall mi toog incha allah soxna yi teelee ñëw góor yàlla bu ñëwee ñu taxaw jërë ngeen jëf. ah mbokk yi kon bis baa ngoog ñi nga xam ne seni ñooy comité bi taxawal bis bi muy waa kër Serigne yi muy seexi Serigne Touba yi ak taalibi Serigne Bamba yi. bis bi kañ la la trois fu muy amee fii ci Mbàkke ci boulevard bi woo nañu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.